ah kontaan naa wax fa dëgg yàlla parce que euh, lii yëpp honneur la pour jigéen ñëpp jigéen fu mu munti nekk rek boo ko sargalee mu nekk ci métier di ci liggéey di ci góorgóorlu nga sargal ko loolu lu rëy la. donc euh, ma am satisfaction bi ma fi nekkee ba léegi ñu ngi may toppatoo bu baax vraiment depuis démb ba tey sargal baa ngi continuer ba tey ji également ñu joxaat ma beneen euh, nu mu tuddati prix mu neex ma mu sedd sama xol lool et puis prix bi maa ngi koy déjee xale yi ma yor. déjee ko également artistes yu Sénégal yëpp jigéen déjee ko jigéen ñi surtout ñi nga xam ne ne que ne ngi occuper ay postes de responsabilité nga xam ne c'est pas évident parce que jigéen buy dem ba di jiite góor aussi euh, fulam ak dem rek moom moo koy mottali ba mu mën ci génn. lu toll lu toll ni duñ koy waxatee euh, mois de la femme. léegi yow lan ngay conseiller jigéen ñi nga xamante ne ñu gën a am euh, performance par rapport ak li nga xamante ne les aléas de la vie. waaw xam nga xam nga àdduna bi nu bi nu nekk euh, léegi boo jàngul wala nga formé wul dafay difficile pour nga am place ci société bi ak métier boo mën a choisir rek il faut que mm, même bu sa jàng soriwul il faut nga nangu ñu formé la boo ci formé yooyu da ngay gën a mën a exceller donc man li may ñaax jigéen ñi rek moom mooy ñu dollu góorgóorlu parce que xam na aussi. la plus plupart des responsabilité yi nga xam ne ni que ni jox nañ ci jigéen boo koy comparer des fois ak même responsabilité yu ñu jox góor vraiment da ngay gis que ni jigéen ji def si am wane na si jom bu baax a baax a baax donc euh, di leen wax fi fi ñu ko teg foofu la ñu gë gën a yokk jàng bi gën a yokk formation bi gën a yokk jom ji également et euh, voilà toppatoo njaboot ji parce que aussi jigéen euh, au delà du travail bi nga xam ne ne da koy def liggéeyam bu njëkk moom mooy liggéey ci biir kër gi nga xam ne ne que ne yar njaboot yi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim